reportage euh, France 24 loolu loolu c'est important. France 24 reportage bi ñu def euh, sur cette euh, la problématique des des hommes de main euh, di charger euh, l'État du Sénégal ba État du Sénégal di pester. Mmh. noo ko gisee yow mi nga xam ne miin nga média boobu. France 24 ils sont dans leur rôle. cest à vingt Euh, France 24 c'est la caisse de résonance de la France xam nga ku ne xam na. Euh, France ni mu taxawee ci conflit Sénégal bi. parce que non France dañoo am problème ak Sénégal depuis longtemps. ah bon problème métti depuis bi chinois yeeg ñëwee di rafle affaire yi waa Turquie yeeg yooyu dañuy maslaa nii rek mais ku ne xam na <laughs> ku ne xam na ni <laughs> France Sénégal maslaa. donc France bëgg na pas déstabiliser mais je veux dire muy RFI muy France 24 tous les médias panafricains. li ñuy wax mi ngi dépendre ci qualité relation bi nga xam ne moom la France am ak gouvernement bi nekk en place loolu tout le monde le sait ñoo di kenn doful ci comprends euh, France 24 ak RFI ni ñu doon traité Sénégal au début du mandat de Macky Sall nga xam ne lépp daf ko jëloon jox ko français yi boo ko léegi nga xam ne Macky Sall dafa libéré wu titel Macron Macron wax ko ci troisième candidature bi mu tontu ko tontu bu metti <laughs> est-ce que xam nga ma bokkul léegi ni ñuy wax ci Sénégal c'est aussi simple que ça je kenn doful quand